bismillahi min asheytaani bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina wa muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman wa jaxal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawil wa xalbi arshida barke borom tuba kon jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam si boobu ba léegi yéen ngi bàyyi xel MK TV fii ci biir réew ak ci bitim réew ci waajtaayu màggal Touba édition Euh, jamono yi comme ni ñu ko xamee rek mu nekk grande exposition di màggal ñu ci gaaral ay téere liggéey mu xadmatul xidma ñu nekk fii ci jumaay Touba ñu ànd kook euh, association des écrivains de la Mouridia muy AM muy kuréel gi ngànk mboolem ñuy bind ci yoon murit moo xam ñu ne ci biir réew ak ci bitim réew ak ci kàllaama gu mën a doon waaye nag ñu ànd kook waa daayira bu mag bi di raw Rawdur Rayahin mu nekk kuréel goo xam si moom kenn dootu ko présenté ci yootu murit mu nekk euh, kuréel gi yëngu ci wàllum xam-xam yàlla def ci jamono sëñ Saliou ba léegi ñu ànd ko liggéey di ko taxaw kon ci ndigal sëñ Bassirou Mbacke Abdou Khadre euh, jaarale ko mu jugee ci sëñ Mountakha Mbacke kuréel yooyu lañ boole fii ci jumaay at mu jot war naa am ren mooy ñetteelu at ñu ànd liggéey Cheikh Khadim def exposition bu mag du ko ànd ci liggéey ci ay waxtaan waaye ay gaaral téere euh, loolu nag da cee bokk li nga xam si moom la ñuy fas yéene tàmbali tey jii wala bokk continuer muy présentation de livres et dédicaces yi nga xam si day jëm ci wàllum téere yi yees waaye téere yoo xam si jotoon nañ ko euh, bind ci yoonu murit euh, tey jii rek benn membre association des écrivains de la Mouridiya tudd sëriñ Modou Mamoun Ndiaye nekk ca diwaanu France jamono yi wax dëgg yàlla wala boog at yi mujj yëpp muy teewee màggal Tuubaa gi euh, di ànd ak ñun liggéey bi yàlla dafa na nëgëni daaw rek amoon na téereem bu ñu doon gaaral fii Eh, soxna Maguette Sylla taxawu ko mu jëmoon ci wàllum téere bi mu bindoon soxna Fadja eh, ren ji mu amaat téere bu am solo bi mu bindaat jëmale ko ci soxna Maguette Mbacke al-Kubra eh, téere boobu la ñuy waxtaanee waaye lu jiitu loolu dañuy présenter rek jëmm ji nga xam si moom moo taalif téere boobu te nekk suñu wàllum ndeyjoor muy sëriñ Modou Mamoun Ndiaye sëriñ Modou Mamoun Ndiaye nag moom ab fentkat la sénégalais. nekk ab ab xeltukat ci wàllum mbatitu murit muy culture murit waaye mu nekk nag euh, koo xam si day gëstu lool ci wàllum euh, dund ak jaar-jaar yi nga xam si euh, waa Kër Sëñ Tuubaa moom ci ci loolu ci loolu lay lay lay ki ñu ñu gën koo xam ci biographe ci ci français muy jot naa bindi téere yu am solo nag bu ci njëkk xam naa ni bokk na ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké la far de la Mouridiyya bind na Sëñ Fallou Mbacké grâce de Dieu la vie et les enseignements de sëñ Abdoul Ahad Mbacké mu nekk téere bu bu bu yaatoo yaatoo yaatu bind ci sëñ Abdoul Ahad Mbacké une vie de prière bind ci sous l'ombre de sëriñ Mor Mbaye Cissé euh, soxna Fatia Mbacké vie et mémoire de la fille aînée de Cheikh Khadim 1878 1969 waaye bind nag téere boo xam si daf koo jagleel euh, soxna Mamet Mbacké al Kubra mu nekk téere bi nga xam si moom lañ fa yéenee gaaral tey ji muy al Kubra fii de Khadim Rasoul xam naa buñ ko joxee kàddu yi moom dana ci gën a leeral waaye sëñ Modou Mamoune yamul foofu ndax am na téere yu am solo yoo xam si bind na ko li ci mel ni euh, le langage mouride mu nekk téere boo xam yaatu na lool ci bitim réew daanaka ñu bëree bëri sax dañ koy faral di nafal lu bëree bëri di yéem téere bi ndax bindul rek ci kàllaama murit waaye li ci nekk ci ci ci loo xam si wax dëgg yàlla euh, wàllum ba mën naa ni baatin da cee nekk ndax ku ne xam ne ni murit lépp lu ñuy waxee rek boo ko xoolee rek day dëgg dëppoo ak waaye da ko culture islamique loolu mu def ci liggéey bu am solo tuddee ko la langage bi murit nekkoon na téere boo am solo boo xam si ba léegi euh, mu ngi ci librairie ak bibliothèque ñu koy ñu koy yër bu baax a baax waaye nag moom dafa nekk euh, ab xeltukat waaye ñëw ci wàll mbindu Cheikhul Khadim yi nga xam si daf koy traduire ba sëñ mun Mountakha Mbacké joxe woon digal ci Matlabul Fawzayni fekkoon na sax muy def tradition bi waaye mu yeesalaat ko euh, mu nekk téere boo xam def ci ànd ak mbokki taalibeem ak turandoom jox sëñ Modou Mamoun Gassama mu nekk bonheur dans les deux mondes en collaboration avec son ami Mamadou Gassama muy téere boobu mu bind euh, ci wàllu mbadum Fozine ànd koog euh, jëmm jooju. jamono yi nag euh, yàlla dafa def ni ci mois août 2024 bi mu génnee téere bu am solo muy téere bi ñu tiim muy alm Kubra fii Xaadim Rasul 1900 1966 téere boobu nag lañ fas yéenee gaaral gannaaw bañ présenter jëmm ji di sëñ Mamadou Mamoune Ndiaye xam naa ni man koy jox kàddu gi ci njëkk xëy na day nuyoog mbokk taalibe yi. Euh, daataa ñëw nag ci contenu téere bi nga xam si li euh, ñu ko bindee li ci jot a nekk laataa ñuy ñëw ci wàllum synthèse bi ko sëñ Mamour gannaaw ba ñuy ziare bu baax ñu ngi lay jox kàddu gi euh, nga jëkkoog ñu ci téere bi gannaaw ba nga pré ba nga nuyoog mbokk taalibe yi. auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala ngi leen di nuyu leen ziare. di sant bu baax baaxit baax waa ayam ci euh, tatagal gi ak euh, posé gi ngir ñu may ba ñu mën fee incha allah euh, gaaral téere bi ñu bind ci soxna may waaye laata boobu nag ñoo ngi siyaare bu baax a baax al xalifatul aam yi taayifatul murid sëñ Muntaxa di siyaare it sëñ Abu xalifa ak sëñ Mudu Maamun di rek mbokk yëpp rek am mbégte ci tawféex gi ñu suñu boroom defal ba ñu uh, ñëw fi mën a présenter téere bi uh, téere bi nag maanaam alkubra noonu nga ko waxe ñun li ci ëpp ci li ñuy bind ci jamono ji uh, daa jëm ci ay biographie ci njabootuk sëriñ Tuubaa loolu it liñ ci jublu maanaam mooy sëriñ bi moom maanaam njaboot gi résultat njàngaleem la kon boo leen wonee rek njàngaleeg Sëriñ moom ngay wonee ba tey wax dëgg yàlla kon koo ci jël rek noonu nga ko waxe boo bindee ci moom koo jël rek daanaka lépp day delluwaat ci Sëriñ Tuubaa euh, soxna waaye nag bi ñuy gëstu ci moom nag dañoo maanaam dañ cee am ak mbégte ak ay surprise ci biir ndax ñenn ñi sax am na ci ñu bëri ñoo xam ne boo nekk soxna may euh, ñi ci gën a xam surtout génération yi mujj yi mooy euh, soxna may borom laytul xadr muy soxna may euh, soxra soxna may kubra nag xam naa ne euh, li mu xaw a yàgg la ndax moom mi ngi ganee àdduna ca Thiéyène Jolof 1908 1908 day tombeek bi nga xamee ne maanaam sëriñ bi jóge na gànnaar ba ñu war ko léegi tubaab bi jaaxle na ci moom ndax yóbbu nañ ko Gabon juróom-ñaari at amuñu ci résultat euh, yóbbu nañ ko gànnaar foofu daanaka contraire liñ bëggoon lañ fa am ndax ba yóbboo sëñ bi gànnaar moom naar yi nga xam ne ñoo xam-xam ci euh, alamul islaam wax dëgg yàlla dañoo mujj doon ay taalibeek ak i ambassadeur sëriñ bi Euh, loolu ci ciy firnde ci histoire mooy tey jii euh, diwaan yi Sëñ Abdou Lahat mooloon kenn xamul lu mu toll nga xam ne naat dañoo mujj wëlbatiku di tagg Serigne Touba ñu xam ne loolu kon bu kon ne woon moom day mel ni Gànnaar rek euh, Sénégal day mujj doon benn te it mag ñi it noonu la miine woon yoon wi tax na nag tubaab bi ne léegi daal li ci des mooy nañu jël sëriñ bi yóbbu ko Ceyeen ndax foofu Ceyeen niñ ko mën a misaali c'est un désert intérieur waaw bërëb la boo xam ne fu naqaree dem la. Euh, ba pare it dara amu fa daanaka jàpp nag bu ñu ko isolé foofu xëy na maanaam euh, portée enseignement bi dana euh, limité wu. waaye Serigne Touba kenn xamul lu mu doon ndax bañ ko yóbboog ci yéen daanaka mag ñi ngi fiy dégg ñëpp ci yoonu murit ku mel ni sëñ Moussa Ka sëñ Fallou Cheikh Moustapha ñoom sëñ Modou Mamoun ñoom ñëpp fa lañ leen tarbiya fa la ñu mottaleeg seenu tarbiya ba ñi ci ëpp sax fa la ñu sampee kër wax dëgg yàlla. nga xam ne dem nañ ba mujj gi tubaab bi ci boppam nee nañu euh, fii moom buñ fi bàyyeeg sëriñ beeg taalibe yi on avait un seul Cheikh Ahmadou Bamba waaye danañ mujj am ay sëriñ tubaab yu bëree bëree bëri bëri ndax tarbiya gi ak tarxiya gi nga xam ne maanaam moom la ma ngi nekkoon foofu. foofu nag ca ca soxna si fa la ganek àdduna ci 1908 ca yéen it euh, lu bëri ñëw nañ ci téere bi ndax day maanaam euh, site emblématique. historique bu yéemee ci yoonu murit moo tax euh, ci téere bi taxaw nañ ci ceyen lu yàgg ngir euh, indi fa yu bari yoo xam ne ci yoonu murit euh, ceen la xew ceen la xewoon bokk na ci ganek àdduna sëñ Abdullahi mu Cheikhul Khadim nga xam ne moom 1907 la ganek àdduna foofu ceen sëñ bi seexale ko xasida gi naan minal xaq nga xam ne loolu phénomène la goo xam ne maanaam ceen lañ ko doon gis maanaam sëñ bi euh, njaboot gi ku mel ni soxna may fi mu nekk nii sëñ baa ngi ko seexaleeg xasida gi nga xam ni sëñ baa ngi ko tënki ci euh, urufil allahu euh, beneen ba ak ihdi jami alhaadi ñaari tur yooyu maanaam ñaari xasida yoo xam ne sëñ bind na ko foofu ci ci jamono ji nga xamee ne maanaam soxna si gane na àdduna nga xam ne mag ñi sax daanañ wax naan soxna si soxna may moom faw ay mbiram dana yàllaawe te it euh, njubit dana nekk ci moom ndax ñaari xes yi nga xam ne sëriñ bi moom la moom la ko seexale muy xasida ak alhaadi ihdi jami alal siraatil mustaqim ak allahu tàmbale ba bu ko defee kon soxna si euh, mu ngoog ceyeen googu daal yu bëree bëree bari xew na fa ndax euh, soxna Faati Isa Jóob it niñ ko xame la ko sëriñ bi waxoon ne kook maa lay dugal ci bàmmeel loolu sëñ bi ba mu koy def nga xam ne que ceen googu la ko defee bi mu demee ba waxtu jot rek la ko woolu mu daal di ñëw loolu it mu ñuy fàttali loo xam ne que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon na ko ndax euh, moom it euh, waajuruk Seydina Alin moo doon daanaka ak yaayam Fatima moo doon yaayam ba yonent bi ne woon ko maa lay dugal tamit ci bàmmeel te yonent sallam noonu la ko defee woon jiitu ci bàmmeel ba loolu it daa mel ni nuroo naag lii ndax soxna Fatou Issa da doon wëla rek soxna jaara ba pare soxna si bi mu nelawee ca Poroxaan daanaka li desoon ci euh, sëñ bi ci ndawam ak li topp lépp soxna si moo ko doon toppatoo ba euh, ndey Fatou Issa ko doon wooyu sama ndey nga xam ne euh, sëñ sëñ Tuubaa sax tudde na ko doom muy soxna Jóob Mbàkke xam naa danañ ci dellusiwaat ndax bi mu ko tuddee ba noppi dafa nag sama ndey soxna Fatou Issa Jóob laa ko tuddee kon sëñ doon na tuddee doom ay mbokkam ak ñu ko jege. Euh, waaye li ma bëggoon wax foofu rek mooy la yantu salam defoon ak waajurug Seydina Alioune moom la Serigne Touba defaat fii ci Thiéyène ak waajuru maam Thierno nga xam ne keroog moo ko dugal ci euh, biir bàmmeel bi ñaanal ko génn na lii de tey jii laa koy mujj a def. kon Thiéyène muy bërëb bu ama ama am solo wax dëgg yàlla ci yoonu murit soxna si euh, gane fekk àdduna waajuram mu jigéen niñ ko xamee mooy soxna Aminta Bousso mi nga xam ne bokk na ci. doom sëñ bu bi mi nga xam ne mooy nijaayu Cheikhul Khadim am na it ay càmmiñ soxna Aminta Bousso ñu naan sëñ sàmba Bousso ak sëñ Mbacke Bousso ñu leen di woowee sëñ Mbacke Kanni ak sëñ Massamba Kanni Bousso ndax soxna Kanni Mbacke mooy seen waajur ñuy ñuy yéemeek yéemeek yéemeek ci yoonu murit Kanni Kanni yi ci biir mbusoobe yi ñi leen xam-xam nañ ni mooy ñi ci gën a bàyyi bàyyi faale ndax pas-pas goo xam ne am nañ ko ba mënoo leen sa xàmme ci wàllu maanaam pas-pas ak pasteef ak euh, waa kër Cheikh Ibrahima ah muy muy muy ñooy nag ñooy ñooy euh, ay ñooy nijaayu soxna si nga xam ne bañ koo koy jox euh, bañ ko bañuy jox maanaam sëñ bi bañ koy jox soxna Aminta Bousso lenn rek lañ ko wax ne ko Mbàkke lenn daal la ñuy sàkku mooy sa jëmm ji rek lañ ci bëgg sa jëmm ji rek lañ ci bëgg euh, soxna Aminta nag am ci euh, soxna May mii gane ak àdduna 1908 am ci euh, soxna Xadi Mbàkke am ci Cheikh Abdoul Khadr nga xam ne jumaa ji nekk nag imaam lépp ñaar fukki at ak benn ñett ñi la ci soxna Aminta soxna Aminta Bousso am loolu yàlla soxna si tamit nekk ku yéeme ndax keroog ba mu gënee àdduna Euh, ci zulhijja ñetti fan euh, sëñ bi dafa yónnee laajte ndax góor la ñu ne ko mu ko euh, daanaka jigéen la de mu nekk ndaw li demal xoolaat dem leen xoolaat ko ñu dem xoolaat ñu wax ne ah mbàkki day góor la nee nañu def na ko ñetti yoon mu ne moo nag de cëru góor laa ko fàgguloon cëru góor laa ko fàgguloon loolu dana feeñ ci parcours soxna si ndax daanaka ceen euh, googu 1908 1912 boo ko xoolee mu tollook tolloog xanaak 8 9 10 11 12 4 ans ak yooyu ca euh, bi sëñ bi maanaam ba ñu yóbbu sëñ bi njaareem ca maanaam la jël njaboot googu yëpp nag nga xam ne que euh, boobu ay tout tànk la ñu yóbbu leen ndaam nga xam ne ko fa la ñu war a jànge kon seen lépp seen formation ñu ngi ko defee ndaam formation na may nag boo ci duggee nag dangay ngay gis ne ni dañ doon former góor ñi rek maanaam foofu lañu jaar ak moom waaw ndax ku mel ni sëñ Abdoulahi yi ma lay wax daanaka ak seexam la woon euh, bu doon ci armée yi naan classe lañu nga euh, lépp ñoo ko defandoo foofu euh, ndaam falak la jànge waaye sëñ Abdoulahi daan wax naan li ko doon métti sax yenn saay mooy soxna si li mu booleeg maanaam di def li jigéen ñi def ba pare di def li góor ñi def waaye nekk na fa di jàng di jàng di jàng ba mokkal alxuraan loolu it maanaam dikk euh, bi mokkale alxuraan ñu toppaat ko ba mu bind bind googu bind alxuraan nag maanaam c'était tune première ci yoonu murit ndax euh, ku tedd ki euh, ñi ko jiitu doon nañ mokkal waaye ku bind alxuraan ci soxna May Kubra yi la ko soog a amee bi mu ko ci amee it li ci yeme maanaam mooy dafa amoon passé ndax sëñ ba mu nekkee gànnaar Cheikh Sidiya da ko wonoon kaamil boo xam ne doomam bu jigéen a ko bind ne ko sama doom ji de moo bind kaamil bi sëñ bi yéem ko lool wax dëgg yàlla waaye comme que sëñ Tuubaa moom saarixoo fil moom ci lu baax rek maanaam ci maanaam ci lay dox bëggoon nag am moom it doom ju jigéen koo xam ne bind na kaamil ndax alxuraan ak sëñ Tuubaa moom ñëpp xam nañ ni maanaam ni mu demee bu ko defee soxna si anaam ba mu bindee kaamil njëkk nee na njëkk na ko bind sax indi ko sëñ bi ne nañ ko toppaat booba ba mu bindaat ko bi mu ko bindaatee indi ko sëñ bi kontaan ci lool lool lool wax dëgg yàlla ba ne ko euh, loo xam ne mosu ko wax kenn ndax da ko nekk euh, soxna May euh, am na maanaam li nga xam ne moo takk woon ci sama xol bi de yaa ko tekki maanaam amoon nag na bu nekkoon ci xolam wala bu doon tubaab dañuy naan désir ardent maanaam bëgg gu tar xam ne amoon na ko ci lenn ba tey amagu ko ci njabootam loolu nag mi mi ngi ko amee ci soxna May mi moo ko defal lool. Eh, keroog nee nañ sëñ bi bég na lool ba eh, yu bari dig na ko fa bokk na ci dana na ko danaa la tudde doom eh, wax ñu daaj daajal daajal ko ci saasi ab barak jamono yi nag barak boo koy xool mën naa tolloo tey ji sax ab kër ndax mooy la gënoon a luxe ci jamono jooju ñu daal di koy ñoom sëñ Kala Sey sëñ Mbàkke Juuf daal di dem wuti pont ak lépp daal di ñëw daajal ko barak sëñ bi li ci jublu woon maanaam mooy soxna si nag daal di dox diggante waa barsàq yi fi ñu nekk ak moom sëñ bi di ko gis di ko yar nga xam ne yenn saa mu defee neen sëñ bi ne ko may mun na lu ma la waxoon waxuma loolu balaa ngaa def lii waxal bismillah mu ne mbàkke wax naa bismillah de waxal ca kaw bismillah nga xam ne ki yu bëri fi mu nekk nii euh, gannaaw bi bi maanaam jóge suñu bët mag ñi dañ doon dem ci soxna may rawat nag donc sëñ yi nga xam ne euh, moo leen féetoon mag mu leen di jàngal maanaam ni sëriñ tubaa doon yare nga xam ne kon ku yéeme la kaamil googu it yemu ci bi mu jógee ci kaamil gi nga xam ne moom doon nag loo xam ne prouesse la woon ci ci yoon wi maanaam euh, sëñ bi nee na ko nag euh, mu dem léegi jàngi taalibe loolu it euh, mi ngi ko defee mu ngi ko booleeg soxna ja moo ko jàngal taalibe gi jóge fa dem na ci sëñ Mbàkke Buso fa la jànge xam-xam ba géeju ci lool nag wax dëgg yàlla loolu xëy nag danañ ci ñëw ci kanam firndeek maanaam Euh, dimension ci wàllu xam-xam euh, loolu maanaam mooy euh, bu ñu doon wax formation ci téere bi foofu la tàmbalee gannaaw ci indi formation maanaam soxna si fi mu jaar ak résultat yi nga xam ne maanaam jëlee na ko fa waaye yemuñu ci loolu bañ ci jógee it dem nañu dugg maanaam ci digganteem ak njabootu sëriñ bi ku mel ni soxna Faat Jën doon ma ko waxe moom moom la jàppe woon sëriñam nga xam ni lépp lu mu doon def rek bu ciy laaj ndigal gannaaw sëriñ bi euh, soxna Faat Jën la koy laaj ba ci photo bi nga xam ni moo gën a siiw te daanaka mooy benn photo sax biñ ci am euh, ba mu koy def soxna si ngi woon Kaolack ku ñu naan sëñ Mor Soxna Mbàkke euh, moo sàkk woon ci soxna si ngir mu am maanaam nataal waaye mën na ko balaa ma koo def nag foo ma am ci ndigal foo ma am ci ndigal ci la ñu yónni ci soxna yónnee ci soxna Fatia fii ci Touba ba soxna si joxe ci ndigal loolu di wane maanaam dimension bu kawe ci taalibe ndax tey jii moom euh, ban taalibe <laughs> wala soxna soo xam nekk bu ñu la bëggee photo rek photo dangay naan daal faw mu am ci ndigal ba noppi faw mu nga am ci ndigal nga xam ne soxna Fatia moom la jëloon def ko référence am def ko sëriñam euh, bokk na ci it euh, li nga xam ne maanaam lu siiw la. bi nga xamee ne nekk na ci soxna Fat Dia di fa liggéey euh, di fa tarbiyu am na bés ñu jox ko addiya bañ ko joxee addiya euh, soxna Fat mu ñëw ci soxna si nag ne ko lii kat dañ ma ko jox addiya mu ne ko ah, ah dañ la ko jox léegi ni ngi ci def mooy da nga koy da dem ci marché ba nga jënd ci super boo ci jëndee super euh, nga dem yóbbul ko sëñ bi bu la nee loo ci jublu nga ne ko addiya soxna si daal def noonu dem ci marché ba jënd ci super daal ñëw jox ko sëñ bi sëñ bi ne ko euh, may mun a loo ci jublu mu ko ah addiya addiya la nee rek sëñ bi ne ko baax na kon danañ la ci defal li gën danañ la ci defal li gën moo tax ñu bari bu ñuy jàngat dun dunduk soxna si dañuy naan lu gën moom daanaka lépp ngi ci biir bu doon tubaab dañuy naan la quintessence du bien euh, mu ngoog bu ko defee euh, soxna si ci noonu ñu ko waxee ci wàllu formation bi ko euh, euh, soxna Fatou Dia formé ba noppiit dem na Gédé jàng fa xam-xam ndax Sëñ Tuubaa moom saa su nekk ñetti daara yi moom la ma a yor daarak ak alxuraan daara ak tarbiya ak daara ak xam-xam ñetti daara yi soxna bu ci nekk jaar na ci ba am ci maîtrise goo xam ne moom kenn kenn xamul nu mu toll bu ko defee nag liñ ci mën a waxit indi ko ci téere bi Euh, mooy li ñuy naan wàllu résilience soxna si dana ci mën ak jàngale lu bëree bëree bëri bëri wér wax dëgg yàlla ndax euh, noonu ñu ko xamee euh, Daaru Muxti la njëkk a dem di fa liggéey ca kër suñ Mouhamadul Habib jóge fa dem Mbàkke Xewar soog ak ñëw Daaru Salaam waaye njaboot gi ni mu leen tiye ak ni leen yare maanaam kenn mosu faa àgg ba tey jii ñëpp xam nañu njabootam sell gi ñu sell ak baax gi ñu baax bu ko defee loolu it maanaam développé nañ ci lu bari ci biir téere bi indi ci it ci wàllu taalibe gi ba tey jii ndax am na jamono joo xam ne moo soxna Fadja dañoo nekkoon Daaru Salaam di fa dund loolu nag ci bu ñu ko waxee lu yéeme lay doon ci doomu Serigne Touba ndax am na bés mu ànd ak soxna Fadja bu ñu xëyoon dañuy doxantu dañuy doxantu bu ko defee nag euh, ba ñuy dox jékki-jékki Daaru la woon ñu seen saxaar di ñëw soxna Fat Jane ko may summil say daal summil say daal ñu siyaar ak saxaar si jóge ci Serigne Touba xam nga loolu wax dëgg yàlla ci taali moom seen ab locomotive bu jóge Touba nga nekk nañu summi suñuy daal ngir siyaare ko barkeelu ci defe naa ni ba tey ji maanaam ña fa àgg moom ci euh, wàllu taali moom ah oh, moom xam naa ne sori na lool daal sori na lool yooyu dana ñëw ci téere bi maanaam njàngale yooyu dana ñëw ci téere bi ci wàlluk taalibe wàlluk euh, fonkuk ndigal gi euh, niñ ko waxee euh, ba tey dana ñëw maanaam ci téere bi digganteem ak njabootuk Serigne Touba noonu ma leen ko waxoon ku mel ni Cheikh Abdoulahi moom daanaka ak seexam la woon moom seexam la woon wax dëgg yàlla nga xam ne que euh, soxna si sëñ bi doon na dem lu yàgg bàyyi ko daaru maxtaan euh, daaru raxmaan foofu ci këram lu bari mu mu ko yoral ku mel ni suñu laat moom daana wax naan soxna si li ko yéem ci moom maanaam mooy saa yu ko seet see daaru salaam ñett yi dara du ci manqué maanaam euh, di ko fekk muy jàng alxuraan xéewal gi it moo koy defaral ci ay loxo loxoy boppam dana la waxtaanal tamit ci Serigne Touba. nga xam ne li mu dund ak sëñ Touba daanaka sëñ bi mu fiy jógee 1908 euh, soxna si mi ngi gën a àdduna 1908 1927 mi ngi tollu ci 19 euh, vingt ans mu ñuy fàttali soxna Aïcha maanaam ni mu xamee woon lislaam ba yoon salaam di naan seen genn wàllug diine mën ngeen koo jëlee ci euh, soxna si waaye lu jëm ci wàllug murit tamit wax dëgg yàlla soxna si maanaam professeur la ci woon. goo xam ne lu lépp da lay naan lii maa ngi ko jëlee ci Serigne Touba yooyu indi nañ ci yu bëree bëri bëri bëri ci wàllu téere bi euh, ba tey jiit euh, li ñu mën a wax it maanaam ci wàllu euh, maanaam portrait bu ñu ko doon def Sénégal dañoo toll ci maanaam naan jigéen ñi dañ leen a war a alphabétiser loolu la ñuy wax Sénégal maanaam dañ leen a war a jàngal ñu mën a lire ak yooyu waaye fekk nag njabootuk Serigne Touba ku mel ni soxna May moom. dama nekk du ma nekk maanaam c'était c'était pas une femme lettrée mais c'était une femme de lettres maanaam moom weesu woon nag jàng ak mën a lire waaye moom maanaam femme de lettres la woon ndax boo xoolee lim taalif euh, da ngay xam ne kii wax dëgg yàlla niveau niveau gu kawe kawe kawe la amoon ci jamono jooj man fi mu nekk nii wax dëgg yàlla samay gëstu keneen ku ko xam xëy nag mën nga ko wax waaye Sénégal ku ko njëkk a bind kaamilu alxuraan ci gëstu yi xëy nag mën naam waaye euh, preuve bi moom man gisaguma ko wax dëgg yàlla euh, ku ko njëkk ay taalif man tamit ba tey ji gisaguma ko ay taalif yu leer nañ yoo xam ne ba tey jii ñu ngi fi daanaka toll na toll na ci diwaan nga xam ne lu xewaan rek moom day daal di jël xalimaam di taalif euh, bu ñu bëggee xam niveau am sax ci taalif dëgg dëgg dëgg dañuy xool ku mel ni sëñ musaaka bu doon ci monde littéraire dañuy naan ñoom ñaar euh, dañ doon def sax ay duel littéraire waaw nga xam ne day bind bu bindee sëñ mu sëñ Musaa Ka sëñ daal di tontu euh, sëñ Musaa bind jox ko mu daal di tontu nga xam ne kon daa mel ni ñoo tolloo woon niveau waaye nag euh, moo tax man damay faral di wax naan bi ma bindee téere ba noppi bu fekkoon nekk maanaam dañuy wër ak Pléiade littéraire Cheikh Anta sax mu ngi koy wax ci téeréem naan maanaam ñi nga xam ne euh, ñoo yor renaissance euh, culturelle sénégalaise euh, buñ koy xool ci humanité ak ci wàlluk littérature mooy ku mel ni sëñ Moussa Ka sëñ Mor Kayre ak ñoom sëñ Bay Jaxate waaye man dama nekk maanaam soxna si dañ ko cee war a boole ndax moom classe uk sëñ Moussa la woon ni ma la ko waxee ñu ànd di taalif yenn saa yi sëñ bu taalifee jox ko moom it mu taalif delloo ko kon da nga xam ne amoon nag niveau wees woon na foofu sax ndax dana àgg euh, gannaaw femme de lettre googu ma la wax euh, niñ ko xamee ci Europe pour littérature ak xam-xam mënoon faa développer dafa am ñoo xam ne ay sang lañu woon ñoo xam ne ñooy jël taalifkat yi ak bindkat yi di leen financer di leen jàppale soxna si àggoon na foofu ndax ku mel ni sëñ Moussa Ka fi mu nekk nii soxna si moo ko woyloo jëzaaw Shakoor euh, géej gi nga xam ne ñëpp xam nañ ko bu dégg gu yi gannaaw gi soxna li moo ko ko euh, woyloo woon waaye daanaka sax àggul waaye liñ xam ci sëñ Tuubaa ci yoonu géej gi taalif yi euh, soxna soxna may mii moo ko ko woyloo woon nga xam ne daal ku ku kéemaane la euh, àgg na ci ci wàlluk woy maa ngi koy indi ci téere bi di di pour illustrer rek boo demee ci da ngay xool maanaam soxna si bi mu bi mu garab yi nga xam ne ñoo fi nekkoon jamono ji nga xam ne maanaam sëriñ bi sanc na ko fexe na ba fixeel ñu ko dans l'histoire loolu diglu doy ci ñeenti bayit la ko def euh, pour xamul ñu garab yi nga xam ne ñoo fi nekkoon jamono ji nga xamee ne maanaam sëriñ bi euh, sanc na Touba euh, turu ki garab yi ci bëri sax fi mu nekk ni boo ko waxee da ngay <laughs> naan ndax ndax garab la wala déet waaw mu ngoog mu ngi koy tàmbali naan mbebun newun ngigu kàdd daqaarun wa feex sumpun xuréerun wa xël wëng rëb-rëb ak ngeer ratun wa uulun wa guyun gàggey gilixaa paftan wa wiir suma saab-saab akasa beer géej nga xam ne kii bi ci nekk rek turu garab la euh, kon soxna si bi mu nekk daanaka ci wàllu écologie ak ci histoire dëkk bi fexe na ba xamal ñu maanaam yan garab ñoo fi nekkoon ba tey jii bu ñu bëggoon nag maanaam euh, indiwaat paysage euh, ak végétation bi fi nekkoon dañ koy mën a def ndax wax nañu garab yi te gis nga ci ñeenti vers lañu ko tënkale 24 daanaka espace espèce végétale génn nañ ci. waaw euh, am na ci turu garab yoo xam ne moom ba mu koy def sax man mujj dama koo mujj laajte ndax lu mel ni feex man xaw ma ni féex garab la euh, gis nga mu ne euh, saab saab akasa akasa man it xaw ma ni garab la ndekete akasa mooy li tubaab bi di wax acacia ah acacia mooy akasa voilà beer beer beer garab la it géej tamit garab la nga xam ne ay taalifam fi mu nekk nii boo ci duggee da nga ciy jëlee xam-xam goo xam ne kenn xamul tool waaye ki yemul woon tamit ci euh, wàllu végétal noonu ma ko waxee waaye niñ ko xamee euh, poète poésique maanaam bokk na ci fonction am euh, njàngale ndax la jiitu ba ci Europe renaissance géeg yooyu la ko jiitu woon daanaka li ñuy wax ay taaxuraankat ñoo fa amoon nga xam ne dañuy bind pour amuser le peuple loñ ci gënoon a jublu waaye bind ngir jàngale loolu que mu ngi tàmbale woon ci ay ñoom Ronsard ak yooyu waaye fiit maanaam ci euh, Sénégal bind yoo xam ne day jàngal nit ki diineem di ko jox ay jikko yu baax euh, ñu ngi ko euh, maanaam boo ñëwee ci njabootuk Serigne yi ku mel ni May bindam ci loolu la jëmoon nga xam ne formatrice la éducatrice la cheikha la nekk nag poète goo xam ne li muy bind lépp day dellu ci alxuraan ak sunna ak ndax sëñ Musaa Ka mu ngi koy wax sax di ko naan euh, li nga xam ne moom la sëñ bi bind ci araab yooyu ngay yow bind ci wolof ngir euh, mën a kiyee askan wi ndax nit kii boo wax ak ñoom foo nga wax ak ñoom ci làkk bi nga xam ne boo leen bëggee yar maanaam moom lañ dégg teg Sénégal ni ko ñëpp xamee euh, wolof lañ dégg waaye ni ma koy waxee man li ma ci yéem rek bokk na ci femme de lettre bu tal nekk bu tal nii soxna may lim bind daanaka suñu Modou Mamoun mos na koo dajale suñu Modou Mamoun ñang euh, diwaan la daanaka teg ba tey ji euh, milieu universitaires yi professeurs yi euh, intéressé guñ ci ba xale yi mën cee def ay thèse ak mémoire wax dëgg yàlla ndax jamono ji mu koy def surtout wax dëgg yàlla xamuñu ci femme de lettres Sénégal ku jiitu Al Kubra ni ni ma koy waxee ndax téere dama fexe ba xaw ko littérariser entre guillemets su ma ko mën a waxee noonu al kubra soxla soxna may mii moom lu ko jiitu ci femme de lettre bind ay bind yu leer ba ñu mën koo gis euh, xamuñu ko waaye nag ba tey jii euh, Sénégal maanaam xëy nag euh, suñu mbir ni mu décentré nga xam ne du ñu intéressé wu ñun ci suñu culture ak li ñu am waaye saa su nekk rek la ñeneen ñi bind Euh, la ñeneen ñi jëf euh, suñu njàngaleek lépp ci lay jëm euh, loolu bokk na ci gàllankoor yi nga xam ne ba tey jii duggaguñu ci dunduk soxna su mel ni nga xam ne borom xam-xam la intellectuel la noonu ma ko waxee femme de lettre la àgg na ci sax mbokkam wala ku baax bu fi jóge woon ndeysaan day daal di jël xalimaam ci saasi tàmbalik bind loolu ñu ngi koy gis ci. soxna Xadi Mbàkke nga xam ne rakkam la euh, bi mu nelawee fii ci daar Xuddoos rek ca saasa la jël xalimaam defal ko li ñu naan marsiya tubaab bi di ko naan élégie waaw defal ko ci élégie bu yéemeeg yéemeeg ngoo xam ne euh, indi nañ ko ci téere bi def ko ci wolof traduire ko ci français euh, ka ñu naan tamit soxna Jóob Mbàkke nga xam ne daanaka moom classe am maanaam mbokk daaraam la woon ñoo bokk daara ñoo jàngandoo ndaam euh, moom it bi suñu borom dogalee mu nelaw rek defal na ko élégie bu yéemeek yéeme taalif na bay taalifal sax ay wujjam ndax euh, soxna Astu Mbàkke mi nga xam ne moo nekkoon kër suñu Moodu Maamun di nekkoon magug daaram bi mu nelawee defal na ko taalif bu yéemeek yéemeek goo xam ne maanaam euh, kenn mësta gis maanaam taalif gu mel noonu ba pare nekk soxna soo xam ne day inspiré li ko dalee ci soxna may ba wàcc ci suuf muy soxna Ami Euh, soxna moomi euh, Cheikhul Khadim ba ci soxna may suxraa ñoom ñëpp fi mu nekk nii ay poète lañu wala ay poétesse buñ ko mënee wax ndax am nañu ko modèle muy euh, soxna ak may ñoom ñëpp fi mu nekk nii dañ doon taalif ay taalif yu ama am solo nga xam ne maanaam buñ jógee ci wàllu baatin yéeg yooyu yëpp rek bu ñëwoon ci éducation sénégalaise niñ ko war a defee rek ay exemple la ni ñoo xam ne war nañoo taxaw jàngat maanaam seeni dund ba fexek mbir mi xale yi mën cee jot ndax danañ ci mën a jëlee ay jikko yu baax a baax ak euh, fierté ak lu bari wax dëgg yàlla hmm. kon xam naa ne que damay daaneel fii sama kàddu rek ko defee si suñ baam bu amee ay kii ci mottali rek téere bi moom li ci nekk lépp moom <laughs> mënuñu ko indi ci euh, ay simili jërëjëf hmm. waaw baax na moom daal xam naa ne kàddu yu may tëjee daal maanaam mooy waaw mu ngoog Euh, téere bi daal maanaam jàppandi nag fépp ci àdduna bi euh, foo nekk ci àdduna bi daal boo duggee ci plateforme bii di Amazon bëgg ko commandé di nga ko mën a am bu dee fii euh, ci Sénégal danañ fexe ba librairie yu mag yëpp maanaam ñu am ko incha allah am na site boo xam ne danañ joxe lien bi bu ko defee ku fa dugg it di nga ko mën a am waaye téere la boo xam ne daal wax dëgg yàlla école sénégalaise ci woppam war nañ ko adapté adopté ko def ko ci kàggu yi. ndax euh, lu bëree bëri daal mënees na ko cee euh, jànge loo xam ne mënuñu ko wax ci ay minutes di sant ñëpp di gërëm. waaw kay jërëjëf sëriñ Modou Mamoun Ndiaye ci exposé bu am solo bi nga xam si def nga ko ci wàllum téere bi nga xam si moo ko tuddee al Kubra fii de Xaadimu Rasul 1908 1966 sëñ Modou Mamoun dikk na ak ñun ci contexte bi nga xam si ci la soxna May feeñ jamono. ndax euh, dafa nekk ci benn partie de périple de Cheikh Ahmadou Bamba ndax ku ne xam ne sëñ bi ba mu fi jógee ba dem ci géej gi ba mu dikkaatee euh, ba mu demee Mauritanie laataa muy ñëwaat résidence surveillée Diourbel jaar na ci yéen euh, dafa ñeenti at wala bokk 1907 ba 1915 jàpp 1912 12 jàpp 1915 nga xam si yi ci bëree bëri am na fa sëñ bi nag yàlla daal def nii foofu ca Thièyeen ñu ci baree bari fekk nañ ko fa ay mag yu baree bari faral leen tarbee waaye ñu ci bari tin faral leen yewee ñu ci bari tin feeñ fa jamono euh, am na yu bari yu fa xew ci histoire Soxna Faat Soxna Faat Issa Diop ak euh, ñi nga xam si feeñ fa jamono waaye ñi nga xam si wax dëgg yàlla sëñ bi tarbiyee na leen foofu Thiéyène nag nekk euh, dëkk bu naqare woon a àgg ndax bokkoon nañ sax lu tax tubaab bi yëpp Cheikhul Khadim ndax euh, ci biir téere bi dañu ci gis euh, nga xam si Umar Ba indi woon na ko ci Cheikh Amadou Bamba face aux autorités coloniales nga xam si tey képp ku am yéene dem ci sëñ bi rek tubaab bi dañ lay tegal ay conditions ci euh, addiya ji ngay joxe nu toll ak koy àndal ak yenn impôts yi nga war a fay ak yooyu yëpp matee nga dem Louga ñu defal visa nga dookee nga dookee mën a dem te loolu teewul bañ ko taralee gis nañ ni wax dëgg yàlla ku xool rapport ba dafa gis ñu baree bari ñoo xam si eh, dañ koo daté def seeni tur ñi ñu ànd ak yëpp ak li ñu jox Cheikhul Khadim ci fin bi ñu bind ni eh, boo ko dana bari lu ci baree bari loo xam si Cheikhul Khadim am na ko fa euh, mu ñëw nag ci naissance euh, la personne principale muy Al Kubra ci jamono mu feeñ jamono 1908 euh, waaye nag sëñ bi feere ko ay xasida yu am solo bokk na xasida Allah ak Al yooyu yëpp dafa nekk barke yoo xam si topp na soxna si soxna Faat Isa tey euh, ku ne xam ne nii foofu sa ceen Jolof fa la ko sëñ bi woolu woon ndax euh, histoire dafa nettal ni jamono yi nga xam si sëñ bi mu ngi ci tukki bi tubaab bi am nañ benn euh, benn information buñ ñu joxe woon naan fake news ni ñu ko mën a waxee jamono yi di bëgg a décourager yoonu mu tas leen wax ni sëñ bi nekkatu fi gannaaw gi maam Thierno Ibrahima sax daanaka ci la ko <laughs> soxna Faat Isa di ko dalal ko. Cheikhul Khadim am na lu ma waxoon muy moom ci boppam moom moom mooy yor ci bàmmeel te man maa ngi dund kon eh, Cheikhul Khadim daanaka moom mi ngi dund loolu moom lu wér la te it boo ko sàkkoo sa borom ñaan la ko du ñàkk da ko gis te boo waxee nan la tontu nan la ko waxee ba yàlla defee nag sëñ bi jugee ci géej gi ba ni mu demee ci yéen wóolu ko ci la xam ne nii moom xam naa ni ay atam moom eh, suñu borom waxoon day mel ne app ba ñëw na dikkee foofu lañ ko foofu lañ ko denc eh, sono may alkubra Euh, formation gannaaw ba mu feeñee jamono ak euh, li mu jot a def ci formation mi ko àggalee ca ndaam ndaam googu nag ci la mokkale alxuraan bind téere bi euh, téere bi suñu borom boobu nga xam si ci say gëstu wax nga ni amul kenn wala bokk li nga jot a gës lépp gisaguñ kenn ku ko njëkk a bind kaamil waaye nag sëñ Tuubaa bég ca lool ba takkloo ko wuta bégal ko wax ni daal li nga xam si am na lu newoon ci xolam loo xam si moom moo ko tekki te loolu bokk na ci ab naaru gànnaar boo xam ne amoon na eh, soxna suñu ju ab kaamil sëñ soo xadim xel ma ba suñu borom defal ko te ku ne xam na tamit sëñ bi digganteem ak eh, wax dëgg yàlla arxuwaan eh, bu amee ab soxna bu def loolu moom daanaka da cee bëgg lool ba du ci baree bari sëñ bi fasal na ko foofu. tarbiyaam nag mi ngi ko defee ca soxna ja nga xam si moom moo ko tarbiya ci taalibe. ba lépp lu mu daan def daanaka moom la daan tàggu euh, dégg nga ci histoire boo xam si père ba mu bindoon jox ko sëñ bi jox ko jox ko addiye naka noonu nataalam bii nga xam si moom mooy nekk couverture téere bi amaana ba mu koy def sax moom ko fekkee diwaan Kaolack bu ñu ko laajee dañuy faw mu laaj ndigal ci soxna Fàjje loolu da day wane wax dëgg yàlla tarbiya gu mat euh, formation nag ci wàllum scientifique xam-xam sëñ Mbàkke so daal ko koy defal Euh, waaye nag mu nekk nit ku jàmbaare waaye ku am valeur ndax ku ne xam ne ay relation ak njabootu Cheikhul Khadim loolu lépp indi ko ci téere bi waaye yar gi nga xam si yor na ko njaboot gi ak ñi nga xam si seq ak ñoom ci wàllum demlante ak dikkalante waaye ba ci biir këram sax ak ñoo xam si ay wujjëm lan waaye lu ci gën a am solo nag mooy découverte bi nga ci def muy femme de lettre muy large production littéraire bi nga xam si almay soxna may al def na ko mu nekk koo xam si da bind lu baree bari te loolu tamit nekk na xëy na loo xam si information de taille la ndax euh, su la production littéraire murit daanaka ñu ci bari dañ leen ciy wax xëy na góor ñee gën a siw waaye même ci wàllum wolof avec ajami bi dañ ciy tudd ay sëñ Moussa ak sëñ sëñ Mor Kay nga xam ne moom génération lam ba wax nga daan def ay duel littéraire di buy sëñ Moussa di bind muy tontu wala sëñ Moussa di bind moom muy tont naka noonu tamit li nga xam si mooy jasaaw sa koor sax bokk nga ci xëy na doon na ko kii sëñ Moussa Ka mu taalif ko euh, wax dëgg yàlla waaye mu nekk nag ku bari xam-xam ndax téeréem ak ay taalifam gis nañ ci sax ni ñu tënkalee eh, li nga xam si moom mooy garab xeeti garab yi nga xam si <laughs> meññ woon na Touba ak les vingt quatre yi nga xam si boo ko doon def ci étude euh, ci wàllum végétation dañ ci gis euh, lu am solo loo xam si jamono jooju loolu moo woon peuplé woon suñu suñu suñu forêt suñu suñu savane ak yu demee noonu waaye nag nga lancé appel ci. Euh, liggéey yooyu mu doon def ci wàllum littérature man ni dañ ko xaw a umpale wala boog noonu encore exploité euh, muy lance appel ci gëstukat yeeg ci daara yeeg lu mën a doon ñi gëstu yooyu téere yooyu nga xam soxna May bind na ko ndax buñ ko yóbbee ci kàgg yi du ñàkk danañ ci mën a génnee ay thèse ak ay mémoire yooyu yëpp ndax soxna si su mat a xam la la koo xam si les grandes figures religieuses et littéraires de la Mouridiyya bokk na ci ndax amaana ñun Afrique wala boog Sénégal ni ñuy ni ñuy faral di doxee di ci bëree bëri daanaka day mel ni daal ci biti lañ koy gën a xoolee waaye buñ ko xoolee ci ni biir gëstu soxna May danañ gis yi nga xam si bind nañ ko waaye lim def ci wàllum littérature mu nekkoon koo xam si wax na lu bëree bëri ci wàllu marsiya muy élégie nekkoon poétesse boo xam si daanaka lu daan xew rek moo xam bànneex wala euh, naqar wala lu mën a doon dana ko euh, tënk ci kayit loolu nag nekk koo xam si moom mooy njariñu bind ndax li naan l'écriture fixe l'instant loolu moom lu mu teeroon a xam la te ku ne xam ne ni xam-xam ak bind moom daanaka dañoo dañoo dañoo xaw a ànd loolu sax euh, wax dëgg yàlla mu nekk téere bu am solo boo xam si wax na ni mbooleem li libraire dañ fexe incha allah ba mu àgg fa am na ay plateforme numérique yoo xam si dañ ko fa dan ko fa dañ ko fa dugal ku dugg ci ay Amazon yooyu yëpp am na site internet ndox xam dana joxe lien bi képp ku bëgg téere bi rek incha allah mën na sa mu nekk téere bu am solo boo xam si mbindin mi mit nu ko waxee mu nekk style bu bu am solo mi neexee liir loolu wax dëgg yàlla ndax eh, moom moom macha allah téere moom eh, kàllaama <laughs> day day xaw am solo daanaka sax boo ko dee liir mën nga jàpp ni dangaa nekk ci roman yu demee ndax liggéey yeeg ni ñu koy décrire rek personnalité yi personnage yi dafa nekk lu lu lu am solo dëgg yàlla eh, téere boo xam si moom ñu ngi koy recommandé ñëpp la muy al kubra fii xaadim rasul 1908 1966 moo Serigne Modou Mamoun Ndiaye noonu la bindee nag yeneen téere yu bëree bëri yoo xam si ci yoonu murid la ak ci mag ñu baax ñi nga xam si ñi ñi ay euh, njabootub Cheikhul Khadim lan ñu ngi ñaan suñu borom barkeel ko te ñi ngi xaar yeneen téere yu bëree bari macha allah suñu borom dafa leen tawfeex gudd fan ak wér barke borom Tuubaa ñi ngi am mbégte bu baax ci jotaay bi jërëjëf.